Amath kamara nekk membre commission des sages Benno Bokk Yaakaar lii ñuy waajal nag euh, bés bu rëy la pour ñun ñëpp Benno Bokk Yaakaar société civile euh, administration jeune ak femme ak homme ndax bés la boo xam ne euh, président de la république président de Benno Bokk Yaakaar son excellence monsieur Macky sal moo ko mëbët Euh, junj ko xalaat ko doxal ko mu jàpp suba ci réew mi yëpp ñu war a taxaw temm ngir set setal dëkk bi loolu nag bi mu amee jëwriñam bi di madam Ndeye Tické Ndiaye Diop ministre porte-parole du gouvernement euh, la mu waroon def ak ñun ñëpp dox na ko wax na ko firnde bi mooy responsable Benno Bokk Yaakaar yëpp taxaw nañ def bés bi muy seen bés waa kër euh, docteur Ndiaye gis ngeen leen fi waa kër euh, Augustin ñu ngi ñëw waa kër euh, Abdou Mbow Siré Dia amul xejj amul seen génn na sax Benno Bokk Yaakaar ba ëmb ñooñi réew mi yëpp dëkk bi yépp muy góor di jigéen mag di ndaw ñu def nañ ko seen yëf ñu yaatal ko ba ñëpp mun cee xej euh, ci taxawaay boo xam ne aussi ràññee nañ ci euh, bu CC euh, madame Ndeye tike njaay mooy madame Kassé tey nag ñu ñëw ànd ak staffu commission des sages ànd ak représentation kilifa yëpp ñu ñëw pour teeru matériel bi gis ngeen ko nii bari na matale na daal suba inchara bi waxtu wi ñu joxe muy 9h su jotee suñu dajee fi ñu war a jotee ci njiitalu préfet yi maire yi ministre yi député yi PCA yi DG yi SAGE yi ak au conseil yi conseil municipaux yi conseil départementaux yi ñëpp nu ñu gën a bare ak nu ñu gën a matalee nu ñu gën a ràññee ko dañ taxaw pour démarrer def ko muy suñu yëf def setal Thiès dañuy door te kanam la jëm ndax président de la république dafa ni nañ ko tàmbali waaye na wéy matukaay yëpp gis nañ ni jël nañ ko pour ñu tàmbali ko suba ba pare wéyal ko kon taxawaay bi jekk na ñu ngi ñaax population yëpp ñu xam ne du mbiru bennoo bokk yaakaar ñun defuñu ko benn mbiru bennoo bokk yaakaar mbiru Cees la góor jigéen mag ak ndaw kilifa diine kilifa aada yi ñëpp lañu dem waxtaan ak ñoom ñu rafetlu ko def ci seen ñaan ba pare joxe seen ndigal ne seen i taalibe seen njaboot nañu génn def ko muy seen yëf ndax loolu soo demee ci diine set ak sellal ponk la ci boo xam ne bu am solo la kon jàpp nañ ne defaluñ ko suñu bopp defaluñ ko waa benn bokk yaakaar ñëpp lañ ko defal président Macky Sall lañ ko defal yu mel nii feneen su fa amee yat la président ba jël pour mu am koy leeral parce que léeg ñu joxe ay réew ne tegtal lañu ci waaye fa réew yooyu jaar ba ñu agsi fii président Macky Sall jaarul foofu dafa diisoog réewam waxtaan ak réewam wane fulla wane fayda wane mat génne matukaay yëpp njumtukaay yëpp mu joxe ko ba pare taxaw njëkk a jël bale bale fa ci ci ci weyam wewu tànkam donc il a prêché par l'exemple il a appelé tous les citoyens et toutes les citoyennes à se mobiliser chacun et chacune en ce qui le la concerne pour lancer demain 1er février le le le set setal national l'appel a été entendu en atteste cette mobilisation large et surtout plurielle qui démontre que ça va au-delà de Benno Bokk Yakaar que c'est une activité citoyenne qui, qui demande un consensus général, un consensus national en ce qui nous concerne, le consensus dans toute la commune de Thiès pour faire de notre cité une belle cité, attractive, propre, un cadre de vie amélioré et sans cesse attractif et attrayant. La mobilisation Elle est effective. également a euh, Nous saluons la diligence avec laquelle les autorités ministérielles, administratives, ont mis à disposition le matériel. Le matériel, il est là, il répond à nos besoins, à nos attentes. Demain, nous n'aurons aucune excuse pour ne pas démarrer en trombe cette journée de euh, man Sersetal. Je responsable nekk au niveau des HLM de Dakar, mais di liggéey ci euh, docteur Ndiaye comme ni ko Amath waxe vraiment mu yore commission des sages dañuy rafetlu waxam di wax ni lii euh, da jigéen du ko tànqamlu ndax jigéen bu dee set moo war a jiitu te bu ñu fàtte ni avant président di waxe tegtal lii pour citoyens yëpp jog groupe de balayage créé nañ ko au niveau de Thiès ay groupe de balayage femme de développement yëpp ku ne da ngaa am euh, euh, groupe de balayage kon looloo tax ci biir waxu amaat nga dégg mu ni amul distinction de partie amul kii fii la fekk geste citoyen la ñu woote kon ñuy woo bépp jigéen mu génn jeunes yi génn ndax dëkk bi bu setee suñu dëkk la ñoo ko war a setal ñuy wax ni bu kenn wax ni fii laa féete wala fii laa féete na ñëpp génn ñu àndandoo setal suñu dëkk ndax bu dëkk bi setee ñoo ko moom bu setul ñoo ko moom kon bu buñ ci kenn xaar li may wax nag plaidoyer boo xam damay jàllale euh, suivi bi suivi bu amee nañu renforcer groupe de balayage yi am ci quartier yi suñ leen renforcer matériel bu mel nii bi ñu indi tey jii ñu renforcer leen ko kon Thiès dina set te président bu euh, tegtal bu mu joxe macha allah bu demee ba évaluation dina kontaan lool dina bég lool wasalaam ngeen baal ñu àq. asalaamaaleykum. waaw maa ngi nuyu ñëpp seen tur ak seen sant fi nga ne daanare rek fi laay commencé ndax nag tubar fakalla bu nuy woote set kees a tax ndax kees ni mu ko waxee rek jigéen ñëpp bale. def ay groupe bale koñ boo dem group bale yaa nga fa ñii def àllarba ñii alxames ba samedi delsi kon tubaar fakkaal ni mu ko waxee dañuy woo jigéen ñëpp man nag may wax ci turu bennoo ndax comité de saas man Adja Mati ñaax ci laa bokk kon maa ngi woo saas yëpp ñu woo seen njaboot gépp ñu bokk génn ba ca loolu dolli ko may woote ci turu marché Grand Caisse ndax nag am naa délégué bu góor waaye maa toog topp may délégué bu jigéen ba kon bu ma ko fekkee damay woote ci turu Grand Caisse di woo waa marché Grand Caisse gépp nag suba dinañ fa set satal bu neexee yàlla nte bi kon ñu ngi koy yëgal waa Grand Caisse gépp di leen woo góor jigéen mag ak ndaw ni mu ko waxee nag amul parti politique ndax set moom amul kii fii lay setal amul kii fii lay bàyyi bu nuy bale fépp la nuy bale kon amul fii laa bokk amul faa laa bokk nit la ñu woo personne ak ñu dëkk kees ñoom la ñu woo woowuñu benn parti bii ak kii bàyyi kee kon na góor ñëpp takku na seen yëpp génn na xale yëpp génn ndax nag setal yàgg na ci man Adja Amady Niakh mi dimanche ba jot armée li grand caisse laa yendu te benn góor du ma fa fekk maa fay nekk ak samay xale yi may neexal ak samay taalibe dimanche chaque dimanche bu ne armée la laa yendu kon ku ma woo ci kaay bale dinaa ñëw ku ma woo ci kaay set dinaa set rawatina nag bañ ci boole grand caisse nga xam ne fa laay xëy di fa yendu di fa yeewoo kon ñu ngi sant Adja Tické Ndiaye di ko ñaanal yàlla lii mu sumb yàlla na ko yàlla eggale te bu mu yem fii nag ndax liggéey bu amul suivi du am njëriñ nii ñu ko continuer nañ ko def chaque trois mois yu ne ñu bale waaye bale tey bàyyi ba liggéey day taxaat kon nana continuer mbale mi di ko bale bis bu ne kon xam nga ne kon président li mu wax moo gën a neexati kon samedi bu ne moo gën a neexati mbaa ñu def ko ñaari sam samedi bu ne ñu bokk daje kenn ko daal fa nga dëkk soo ko defee sa jom def ci sa fulla tubaar fakkal ak caisse de nation bu ñu joxe prix bi kenn doona raw man nag grand caisse ga ma dëkk kenn dooma raw bis bu ñu joxe prix man Adja Amady Niang fii laa taxaw wax ko bis bu ñu joxe prix maay doon paye ah. barke Ndiol Màkka maa ngi tudd Aliou Ndiaye président filière de union région de Thiès responsable PAK Soble marché central en même temps nekk chargé de communication IPOS interprofession de oignon voilà woote bu njiite réew njiitu réew mi woote samedi bu njëkk si weer bi ñu seetal euh, Sénégal ku ne fa nga nekk nga def si la nga mën fii gis nañu madame Ndeye Ndiaye woote na pour ëllëg waa Thiès yëpp génn mhm. yéen ngeen ne du ngeen ko bàyyeeg mbir bi moom kese euh, tey jii firnde ngeen ko lépp lu nga xam ne moo jëm ci wàllu naan geeg yooyu indi nga oto ba mu feesal ndox loo lu ko waral waaw maanaam man bi ma ko déggee dama ci am moo euh, xol bu sedd ak mbégte tamit di xamal la Sénégalais yi ni leen carrément mbir mi du caagi ne ni kin def ndombal tànk rek moom moo am droit pour seetal dëkkam wala moo am droit pour participer maanaam man dama jàpp ne ñun opérateur économique yi nga xam se ne ngi ci dëkk bi tamit di fi liggéey nga xam ne lu bon bon bon am nañ ci au moins benn 1000 francs bu ñu fi gagné war nañoo mën a jël sax ci 1000 francs boobu 500 francs yi ñu dugal ko ci askan wi pour ñoom ñu mën ci gis seen bopp. te defe naa cet laab dafa am solo te yeneen bi sallallahu alayhi moom moo ko diglee léegi nag bu demee ba ministre bi suñu président de la république jóg ni carrément dama bëgg ñu set setal bépp gox boo xam seen am na ci Sénégal dëkk bu ne na fa ña fa ña fa dëkk nañu commencé fan dëkk kon yaakaar naa waxul ministre wala mu wax député wala mu wax kenn rek maanaam Sénégal yëpp la moo xam journaliste bi la parce que tamit yéen ngeen a joué benn acte mooy maanaam lépp lu fi ñuy def it fas ngeen yéene pour fésal ko kon loolu tamit ci participer euh, li ma yàlla xam seen moom laa man ma ba ñu participer ci. Euh, naam lii geste ñi ko gis tey jii dina leen euh, war a neex ñu roy ko mais appel bi lan ngay wax mbokk commerçant yi ak ñeneen ñi sax ñi dul commerçant. dama koy wax même ñi ma jiitu ci commerce. ak ñi nga xam seen maa leen ci jiitu ak ñi ñëwagul ak fu waay mën a nekk. pour xamal leen ni réew doomu réew moom moo ko defal. réew askan wa ñoom ñoo ko defar gox bi ngay commencé nag sa gox boo mënee ba génn ci feneen tamit nga def ko mais doo xaar rek toog sa benn roq ni man Sénégal euh, président daf ma war a jàppale dañ maa war a dimbali rek déedéet loolu doxul réew mi dox maanaam bu ku defee loolu rek mbir mi day xaw a sooxe mais bu ku ne jàppee ni man fi ma nekk man maa war a defar yaakaar naa ne président dootu am problème kon lu wax jeeg sànnantey xeer yeeg yëpp du am jafe-jafe ñun nag ay commerçant lañ ñun commerçant lañ lu néew lu bëree bëri sax bëriwul lu ñu ciy boole mais nag ñun dañ ciy boole suñu bopp maanaam man loolu laa gis man ñun réew mi ñu nekk dañoo war a ñëw participer su parce que moom moo gën a fort ci réew mooy économie tey jii bu commerçant yi xëyoon banque seen loxo dana am mais kon yaakaar naa ne bu ñu defar tamit commerçant dañoo war tàll seen loxo ci li ñu am ñu càkk seen poche ñu dugal ko ci loolu loolu moom mooy sama sama objectif te man loolu laa gëm te incha allah rabbi lii du ma ko dakkal incha allah fépp fu ma ko dëkkal ci dégg ko ci Thiès la ma ca mën dinaa ko def loolu moom laa bëgg te incha allah rabbi dinaa ko def incha allah Babacar Diallo responsable APR Thiès Ouest wala ñu gën koo xamee si Ndiol Mbaye koo présenté tey woote bi la République woote samedi bu njëkk si bi Sénégal yëpp génn ñu seetal suñu réew bii Thiès madame la ministre aussi ne du du des ginnaaw mhm. mais yéen seetaanu leen ko euh, lan moo waral tey ji nga ñëw aussi ne da ngay jàpp si weer bi jël aussi sa poste def si waaw jërëjëf maa ngi nuyu euh, mbokki waa Sénégal yëpp ak mbokk Thiès gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent yàlla Muhammad di dolliwaat encore di sant suñuy ñaari way jur bon di santit ki nga xam ni moom moo def initiative bi muy njiitu réew mi di le président Macky Sall tey bu ma yeboon ne la xoolu ñëpp sedd na parce que it lu tax xoolu nit ñi sedd mooy que ni ki nga xam ni moom la jël jox ko ne ko yow laa wóolu muy madam la ministre Ndeye Tické Ndiaye Diop mu jox ko ndombo tànk ne ko yow laa wóolu fii ci dëkk bi par rapport ak li nga xam ni mooy jafe-jafe yi nga xam ni am na Thiès mu di ko matale mu di ko doxale premier mois di muy samedi suba ñu fas yéene ci def lu mel ni que set setal lay nekk bu ma yeboon ne la ci euh, Thiès ak li wër Thiès kon tey bi ma ko yëgee man ci sama wàllu bopp ma ñëw ànd def ak forte délégation ñëw indi sama participation waaye participation bi ma indi aussi yamuma ci man kese dama ci ànd aussi ki nga xam ne moom mooy la directeur régional de la poste muy Seydou Diakhaté bi nga xam ne moom moo jiitee région bi yëpp euh, ci wàllum poste mu moom it mu participer wàll la ci ci donc tey loolu moo moo doon samay tànk fii ma ñëw tey parce que it euh, Thiès bu ma yeboo la bëri na lutteur te lii du yëfu Thiès kese la lii yëfu senegal yëpp la amul ci yëpp parti boo mën a bokk moo xam nga bokk réew mi moo xam nga bokk ci beneen opposant kii yëfu ñëpp la ñëpp ko bokk tey bu ma yeboon ne la ñi nga xam ni sax ñoom ñooy opposants yi sax ñoom parce que ñun aussi Thiès moo ñu ñor bu ñu gisee par exemple lu mel ni Thiès ñu fiy def par exemple lu mel ni ñun dañ ci war a jug jàpp képp koo xam ni dafa dëkk Thiès nekk cees fépp fu mu mën a doon ak parti boo mën a nekk aussi da nga war a ñëw pour ñëw pour ànd ci ak li nga xam ni moom la président de la république woote parce que it wootewulu ko pour moom dong pap woote wu ko am nga beneen casquette boo xam ne jege nga jeunes yi nekkoon fi ay président ba léegi sax président d'honneur euh, lan ngay wax également mouvement associatif yi nga xam ne ñooy jeunes yi. waaw d'ailleurs sax bon man dama woote sax suba par rapport ak mouvement bi nga xam ne moom laa àndal muy mouvement tabb mouvement tabb man maay président bi donc mouvement boobu boole ko encore jeunes yi nga xam ni tey samay employé la ñu ak jeunes yi nga xam ni tey dañoo topp suñu gannaaw ak yeneen mouvement yi nga xam ne dañoo topp suñu gannaaw ak yeneen AVE yeeg yeneen GIE yeeg yeneen activités gannaaw donc tey ñoom ñëpp dañ leen pour par rapport pour suba à 9 ñu fas yéene ñi bañ naa ko ba dama def benn dispatching dispatching mooy que ñenn ñi dañuy ñëw fii ñenn ñi dañuy dem école Grand Thiès ñenn dañu leen di dispatch pour que pour ñu seetal dëkk bi parce que du ñu toog ci benn gox kese il faut ñu mélanger ko ñu dem xool yi ci yeneen acteurs yi nga xam ni tey ñu ngi am ay tilim tilim. wala ay sachet yuy déchets yi nekk ci ci bitig yooyu ñu bale ko defar ko parce que Pape euh, Babacar suñu Babacar ñun amuñu lu dul suñu dëkk aussi amuñu lu dul aussi fii nga xam ne moom mooy cees moo tax ñi woo ñëpp koo xam ne jeune la rek koo xam ne aussi ndaw nga koo xam ne aussi muy mag muy ndaw fas yéene nañu en commençant par man mii di wax Babacar Diallo di responsable Thiès Ouest APR donc suba du ma bàyyi mu sedd damay ñëw ànd ak jeunes yi ànd ak ñëpp di pousse bureet di ni mbalit di rato di def lépp li nga xam ne tey ji parce que loolu aussi suñu cër la suñu cër la suñu Babacar. merci